ku wérul du liggéey ba am lu jox njabootam ku du jaamu yàlla nit ki ko di jaamu yàlla def di jamu am Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullah yéen ñu siiw sen sen sama xalaat ñu leen di nuyu di leen ziar den fatali yeen ngi sen programme euh, question réponse muy vidéo bi mujj ci semaine bi nga am ni professeur day am question yoo xam ko ko def ay leral donc sax def na ci ay vidéo mais du tere ci ay leral comme ay question la Euh, professeur question bi si jiitu ci semaine bi euh, dafa am comme dafay laaj maanaam nga def ko ay leeral ci ndoxum siti yu jëm ci mandarga yi ak yi xam naa fa <laughs> loolu mooy question moom loolu ci toog salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Pape maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokku internet yëpp euh, waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga question yi moom man toujours nit di ma posé question yoo xam ni benn vidéo la ñu seetaan posé la question léegi nag fekk vidéo yëpp def nañ ko parti waaw. na xam ne sax am na ñoo xam ne sax ni may waxee mooy waxuma sax partie deux bi mhm. mais vidéo boobu sax seetaan guñ ko maanaam tey dañuy seetaan comme ñu wax ci jabet mu seetaan jabet bi rek ñëw bëgg la posé waat ci émori yi dëgg yi demee noonu et cetera dugub yooyu benn keroog am na ko ma woon ni ma vidéo bi ma lay seetaan sax jeexagul bu ko posé woo la <laughs> c'est-à-dire pour wàlla ni toujours dañ koy wax feebar yëpp def nañ ci vidéo presque waaw ba fi mu ñu ngi dugg ci feebar yi nga xam dafa raar mais feebar yi sonal Sénégal yëpp ku jël sa temps benn benn def nañ ci vidéo donc lu fi nit laaj rek def nañ ci vidéo soo ko gisul nga tàppe turu feebar bi ci YouTube. waaw teg ci professeur Ousmane Ndiaye. wala nga teg ci sama xalaat TV. TV bureau ñëw ci mu ngi noonu mhm. donc mu ngi noonu bu ko defee site bi muy laaj Pape dinañ ko leeral comme que question réponse la mais def nañ ko fi émission defe naa def nañ ko fi émission sax parfois. mais City moom mën na jàpp nit ki ba jeexal ko mooy amee Griezmann nit ki dem ba nga xamante ni day day jeex fekk ndoxu City moo ko jàpp mën na ko indil du xasan wokkute bu métti loolu ci ndoxu City la sangoo dañuy xasan waaw am xam ne sax même buñ sangoo dañuy xasan xam seen diggante pooj yi mooy xasan nii ñoo xam tànk yi mooy am lu weex loolu même genre góobu yi wax les pieds d'athlète donc koy def ndoxu City mën na jàpp nit ki bët ba nga xamante ni day toxoñu wala ku nekk wala bët yu xonq yooyu donc da indi mën na jàpp nit ki ba muy éjaculer lu gaaw éjaculation précoce maanaam buy di gaaw a egg du jot boppam egg ndoxu siti dina ko def ndoxu ki ba nga xamante ni du am doom xam ne doom am du am mën dem tamit ba yàq sperme yi tamit spermatozoïdes yi mm-hmm. parce que toujours wax pour am doom bu dee ko góor en général war na am vingt millions de spermatozoïdes mm-hmm. léegi spermatozoïdes yooyu nag mm-hmm. euh, dafa am ci yoo xamante ni bu fekkee nit ki dafa amee cystite tàngaayu mm-hmm. yaram woowu mën na mën na a rey donc ba nga xamante loolu am vingt millions yooyu bu ko defee day day nit ki ba am doom donc mën na koo indil euh, lu baree bari ci wàllu gàllankoor yaram bi hmm. nga gis ñoo xam ne ñu tuddee ba fajar dañuy xaw a tayal hmm. yeewoo seen yaram yi diis hmm. pour ñu jóg lal bi problème lay nekk donc mën nañoo dem ba am ñoo xam dañuy indi li ñuy wax hyperthermie wala fièvre am yaram bi day tàng fekk seen yaram bi day tàng yu day mel noonu am na ci ñoo xam ne dañuy indi karaw guy ruus chute des cheveux karaw gi di ruus wala muy raas ak yu demee noonu am na ci ñoo xam ne dañuy dem ba indi seen loxo yi day xub wala wala wey buñ seewee yi day kotamoo ñu wax mu ñuul noonu donc yooyu ci ay signes la donc bëri na bëri na signes yoo xamante ni daal Pape dafa nekk ci ndoxu ndoxu siti donc comme defoon nañ ci émission dañ koy wax bu fekkee dañ ko wax mu dem seetaat émission bi ñu ci defoon. waaw tàppee ndoxum siti rek tàppee ndoxum waaw def nañ ci émission jox nañ ci ay ay remèdes beneen vidéo bi ñaari vidéo la bi def nañ ci kii euh, développé nañ ndoxu cité bi beneen vidéo ba ca topp ñu yenn garab ñoo koy faj su demee xoolaat loolu dinañ ko mën a gën foofu boo la nee rek ndoxu cité moom mën na koo mën na koo def ci doomu aadama d'accord na yaakaar naa mën nañ sax vidéo na suñu mhm. ko fàttewul de fin bi ba écran de ba mu jeex écran de fin ko bàyyi xam naa rek cliquant ok ok d'accord léegi professeur beneen question bi nag moom xam naa waaw moom. <laughs> boobu yaa <laughs> damay répondre hors hors champ rek. <laughs> non non ñëw répondre comme gars yi gis la parce que gars yi nag la comme seen eh, yow. laaj li muy laaj xam ne du pour fii pour yeneen yi liggéey bi def la. Mm. sama affaire internet la ci beneen seen bi ñu wax ma. Mm. muy laaj tax ñu gëj fa def vidéo ñàkk temps. ñàkk temps voilà muy laaj tam ci site internet site internet foofu lañ ko doon jàngale seen ñu wax loolu ñàkk temps war def ñu vidéo mais nekkul programme bu ñu bàyyi parce que yéen lañ continuer ko jàngal nit ñi nan lañ mën defarale seen bopp site internet ba mën ko monétiser insha allah commencé woon nañ ko nag ñàkk temps tax ñu arrêté ko mais insha parce que weer bi dafa am formation yi ci nekk di defar formation bu jëm ci wàllum youtube hmm. ak formation bu jëm ci wàllum e-commerce ak eh, yeneen ya, affaire ya? ci weer bi lañ fas yéene defar ko mënuñu koo booleeg yooyu nag mais bu jeexee xam ne décembre bi jeex na pare nañ formation bu reprendre ci décembre bi incha allah dinañ ko commencé dugal vidéo yi normal ci wax ko euh, sëñ Pape man li may tàggatoo ah, mooy keroog am na ku ko di ma sant di la sant yow di la gërëm di ma wax ni sëñ Pape moom kenn du ko gis day nekk ci biti rek ci la ko expliquer nag ko pam mi ngi def liguey bu am solo parce que mi ngi jàngal jeune yi nan la gagné ci internet mi gal sen tub bi donc formé nga ji ñu bëree bëri ñoo xam ginaaw yalla tay bu ñuy ko ci internet yow ya tax donc ñom xamna naa bo boo leen mënee revenir aat ci site bobu pour ñu mën ko xam wala yu démé noonu donc lolu aussi dina ci baax. waaw gal sen bi mom sen YouTube bu ñu créé la gis ni internet ni ci perte xaalis ci Sénégal bari hmm. té mën nañ tey mu liggéey la bu ñu mën a gagné xaalis. Mhm. actuellement nii ma lay wax. Mhm. am na ay ma tudd tur wala may xëy seen mais ay xam ni vidéo yi def ci lañ suivre. Mhm. ba di gagné loo xam nga Sénégal boo nee un million rek xam nañu xaalis. am na sax ñu ko ëppale ñu wax ko. am ñoo xam ne ñu ngi cent mille francs chaque weer. ñoo xam ne ñu ngi plus de un million. tey si lan lañ ko mooy topp nañ li ñuy jàngale. gëm ko appliquer ko def liñ leen wax mhm. ñu gis résultat loolu kese léegi ku ma intéressé rek yaa ngi suivre seen bi da ngay dem tapé pap mo Lo gal sen bi Galsen bi boo duggee seen boobu yooyu yëpp jang la nek bo ba def ay vidéo da mhm. doo ci fay dara mhm. da ngay top vidéo yi ñuy def ngay def ñuy def ngay def jeex voilà <laughs> waaw comme pap comme comme comme ni may jàngalee ci garab rek moom it yow noonu doon jàngalee ci internet bi pour wala leen tamit internet bi am na comme ni nga ko waxee rek bëri ñu ci géej xaalis naa Sénégal ñoo ko xamagul ak sunu genre yi nga xam ne ñun ay taalibe lañ pour wala li wax noonu am na keroog ku mu jëloon wax ma ñu fay ko 65 millions par weer ci YouTube na ñu fay ko 10 millions am na ñu dem 14 millions am ñu dem am na ñu dem 35 mille am na ñu dem 50 mille am na ñu dem 200 mille par weer donc yooyu yëpp am na ci YouTube pour ni liggéey la mais ñun toujours dañ ci conscientiser quatre-vingt-dix pour cent caaxaan moo ñu moo a jóg internet bi maanaam xeex xuloo surtout jigéen ñi nga xam ne pap war na TikTok dañuy jël seen temps comme ni ma ko faral di waxee dañuy jël seen temps chaque jour nga perte une heure de temps loolu sax da waaw mais dama jox waaw waaw kay léegi dama jox chaque jour nga perte une de temps léegi yow bi ñaata temps nga perte. léegi nag loolu ñun jeunes yi bu fekkente ne ci góor ñi def na ñu mel noonu mel na xale yi def noonu développement bi ñu war a defar liggéey suñu réew dootuñu ko defal ah léegi nag ñun tubaab yi defuñu internet ñoom pour caaxaar yooyu mais pour liggéey kon ñun war nañoo mën a liggéey ci internet bi ni mu amee ni ko Pape waxee ni mu amee lu lu bon noonu laa amee lu baax lu baax li sax moo ëpp fuuf lu bon li ndax mën nga cee yeete mën nga cee jàngale mën nga cee xame mën nga cee def lépp donc xam-xam bu nit di wër rek jamono ji daanaka yoratul déplacer nga mën nga ko am ci internet bi waaw donc lool nak euh, sant yalla bu baax loolu wër rek am na ko fay ku ko ko xam ko ko jangal comme ni ngay def waaw kay waaw parce que lool idée bi lool la idée bi lool utiliser internet pour lu baax te ñëpp loolu lañu wara def hmm. parce que ñi baax ci aduna bi boko jëlé hmm. ñi baax ñoo ëpp ñu bon hmm, sénégal gi ñi baax ñoo ëpp ñu bon mais ñu baax ñi défa dañuy xawa réserver wu dañuy xawa bu yëf yi amé pëcc xoo dañuy téy seen waaw léegi ñi nga dañoo bon lu leen neex wax way ay làmmiñ maanaam euh, ay si dara <laughs> ñoom xam nga seen ñoom <laughs> léegi mel ni maam da naan dëkk bi moom yàqu na yàqu fekk na xam lu baax te mën koo wax mën koo wane bu ñu génnoon defandoo rek waaw ñee dootuñu fekk mais kenn ku ne boo toogee sa ruq di seetaan jox ñeneen ñi doole euh, dafa naa ki ma lay ma lay wax nii sax moom moo ko ne moom bu amoon ñett ñu mel ni hmm? maag yow exemple ci Sénégal maanaam ñett ak ak ak ñun la wax muy ñeent xama ñaar ak ñun ñuy ñett daal mun ma Sénégal doy baax <laughs> ah, <laughs> mais pour wax la ne rek euh, comme ni nga waxee ci internet bi am na ñooy ñu ci jàngale seen diine si si bari am na ñu ci jàngale xam-xam xam-xam boo bëgg ñu ñaa koy jàngale mm-hmm. am na ñu jàngale lasraar mm-hmm. exemple am na ñu ci jàngale yeneen ak yeneen am na ñu ci jàngale économie mathématique science écriture agriculture mbay yëpp ñu ngi ko ci jàngale donc bu ko defee nag kon lu baax la daal. bu ñu rek maa seetaan koy jàngale si agriculture si affaire fraise. Mhm. mu def benn émission si RTS 2. mi ngi sax si mais émission boobu donc dong dong man ma ko seetaanee ma mu mhm. émission bi rek mënoon na ko def formation bu muy fayee ko sans émission bi kase. mu def ko gratuitement parce que li mu ci wax ci ay secret ci mbayu fraise. loolu da nga nit da waron tok da fay ko mu la koy la nga jaay <laughs> te loolu xam-xam bu mu may gratuitement mais suñu ci nga nit ñi dañ koy romb dem da mm-hmm. nga ko xamni peut-être ma ngay bay mais bu do sa bopp intéressé il préfère mu nekk ci TikTok di sétal ay adamo ak dof yoy nga xam ñom ñoo lembe legi TikTok bi mm-hmm. di wax ay wax dof suba ba ngol mm-hmm. nit ñi ñoo xam nañ ni ñooñ dañoo bon normal luñu xam nañ ko de mais ki leen ñi leen di sétal ñoo leen di dolel parce que ku def ay saga wax yu bon nga def ko ci internet nga toog ñetti fan ñëw xool vidéo bi vidéo bi def ay trois vues quatre vues nga saagawaat def muy def ay deux vues benn vue zéro vue léegi nga bàyyi saaga mais vues bari ñoo leen di may ay junniy junniy vues moo tax ñuy gën a saaga léegi ñuy jàpp ni kon lii may def nii intéressé na nit ñi naa ko gën a def ñu koy gën a def di gën am ay vues kon ñi leen di vues indirectement dañuy participer ci ñooñ li ñuy def hmm. moo tax kenn ku ne li ngay vues da nga ko war a xam hmm. ñuy dañoo participer ci yi indirectement Hmm, hmm, am nañ ci responsabilité. parce ñoo gën a xiirtal ñoo koy dooleel. nga gouvernement Sénégal bu ñu comprendre intérêt dëgg maanaam kon mun naa ni seen liggéey dina yomb torop torop torop njëriñu internet. Hmm. suñu gouvernement bi ni ñu ko ñàkkee comprendre. utilisation bu archaïque lañ koy utiliser maanaam ci yenn affaire yi ko soxla mais léegi dafa dafa xeewi sax par exemple nit ñi war a di dugg oto dem di jàngi. jàngi waaw ak man man loolu. léegi école sax même école sax. doo war na mën a may yow internet bi nii nii nii di di di di di di di xëy di fajal di jàng di tardé ci ay bus di def ay affaire même bu même sax bu dee xale yi ndoy peut être ay école ay école quartier école koñ ci xale yi parce que ñuy jàng lu sori mais université yaa xayti amatuñu raison ñu existé université yi université amatul technologie bi mën na ko remplacer et puis yaay toog kër yi di jàng yaa xayti mais loolu lu tax ñu ne université virtuelle bi doxul defuñu ko ni ko créé nañ ko nii pour tour bi rek mais en réalité contenu dëgg-dëgg amu ko hmm. ba pare leneen li gën metti mooy dañuy jàngale ay contenu yu ay ay ay ay module wala ay contenu wala ay programme dëppootul ak jamono hmm. comprendre dafa bari lu ñuy jàngale ci université jamono soxlaatu ko non soxlaatuñu si jamono dafa dafa dafa <laughs> <laughs> dañoo war a nekk en jour daal hmm. ñu dëppoo jamono ji li mu tolloo ak li jàng technologie ci wàllum xam-xam la waaw xam-xam daa jamono laaj. yooyu xam-xam yooyu lañ war a concentré wu jàngal ko jeunes yi. jeunes yëpp ñuy jànge comme japonais yi ni ñuy jàng ak chinois mm-hmm. loolu moo dëppoo ak jamono. Mm-hmm. chinois ak japonais yi ak coréens yi ñoom façon jàng bi ñuy jàng moo dëppoo ak jamono. dañuy jàng di xalaat seen xel yi di ñaw ba pare ñuy defar. Mm-hmm. créé mais ay management marketing ay euh, lettres sciences nangam. maanaam ñun dañuy jàng ay liira ay wax yooyu loolu. du yóbbu du ñu yóbbu feeran waaw wax fii de bu ñu koy jàng fii ba cent ans fi tool lañu tool. foo créé. chinois du soxla ñu inventé lu bees ñu ni ñuy noonu ñu xool ñu essayé ko benn benn benn trente ans wala cinquante ñu xool. Mm-hmm. léegi ñu gis Sénégal mel ni comme Dubaï c'est pas compliqué quoi. Mm-hmm. jeex <laughs> naa ñuy jégalu. Uh-huh. ah guddal bi tuuti jërëjëf jërëjëf guddal bi baax na te nit ñi dinañ ci jàng lu bari parce que àddina moom jàng la rek te ñu ñëpp di ziar ñëpp di delloo di leen baal ak yéen joxaat dig daje ci beneen vidéo asalaamaaleykum wa rahmatullah